Alioune Faye maa ngi lay nuyu. Ndeye Comba maa ngi lay fay. Alioune Faye nga nekk secrétaire général bu syndicat autonome des travailleurs des universités euh, du Sénégal déjà ma lay laaj sa xalaat ci scandale ba am ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ab défilé euh, de mode bi ñu organisé ca faculté des lettres et sciences humaines ban analyse ngay def ci mbir mi. waaw euh, mot bi nga utiliser scandale ce n'est pas de trop yaakaar nañ ne vraiment scandale la parce que bu ñu tëjee université bi ne étudiants yi dañuy continuer njàngale mi jaarale ko ci xarala yu bees yi mooy li tubaab di wax enseignement à distance parce que université bi mënatul ak accueillir des étudiants en présentiel ba pare à notre grande surprise ñu gis ay autorité di autoriser défilé de mode muy loo xam ne ñaawlu nañ ko trop trop trop trop université bu dee mënul accueillir étudiants yi en présentiel warul mën a accueillir défilé de mode en présentiel loolu contradiction bu réeréer la moo tax nag ñun duñu tàyyi ñun syndicaliste yi di ko ñaawlu di ko dénoncer parce que lii dafa bett ñëpp d'accord donc yéen SAES euh, e ni mu ko ŋàññee aussi da ngeen si daal di d'accord parce que gis nañu aussi SAES e def communiqué di ko ñaawlu bu baax a baax waaw képp koo xam ne ñaawlu nga ko rek man rafetlu naa sa position parce que ñun aussi dañu koy ñaawlu parce que lii comité universitaire yëpp a ko ñaawlu ba tey jii gisaguma kenn ku ne d'accord naa ci. Mmh. Euh, pour yow ñan ñooy responsable mbir mi. responsable mbir yi xanaa moo ñi ko autorisé. Mhm. ñooy autorité wu faculté bi nga xam ne moo abrité mbir mi muy faculté des sciences et des, des économiques et de gestion. Mhm. man bi ma laajtee dañ ma ne doyen moo ko autorisé moom dafa jàppoon ne comme étudiant moo koy organiser war nañ ko mën a def mais loolu dafa taxawul parce que étudiants yi fi mu ne nii dañ leen tere ñëw ci campus bi dañ leen ne présentiel mën nagul am donc à distance la ñuy def donc bu dee loolu la ba étudiants yi nangu ko ñëpp nangul ko vraiment dañoo war a tëj campus bi bañ ko ubbil ay mannequin ak ay téléspectateurs soi-disant ay mot la ñuy def wala ay culture la ñuy def loolu amu fi place pour le moment comme université dafa tëj. Hmm. pour yow daal dañu war a sanctionner ñi ko def wala. man de duma laaj sanction mais damay alerter rek ne loolu daal ñaawlu nañ ko. Hmm. du je abilité pas dañu sanctionné wala bu ñu sanctionné mais am naa droit nag bu xewee ci université yi dama jiite syndicat wu boo xam ne travailleur université yi la ëmb ma yëkkati sama kàddu wax ci sama xalaat wax ci sama position syndicat. rafetluñu ko tey rafetluwuñu ko ëllëg te ki ko def war na xam ne def na lu ñaaw te ki ko def fan yii di ñëw wala ba l'avenir war na éviter di def lu mel nii. mais lan moo tax euh, Alioune Faye ngeen bëgg euh, jël mbir mi garaawal ko ba mu ba mu grave daal lu ko waral. mais université moo tëj bu doon sa fekk université di ubbi. waaw amul problème mais mënoo ne feeñ tëj naa université. parce que université mënul accueillir étudiant ba pare nga fay accueillir ay ay modernistes di fa accueillir ay mannequin di fa accueillir tenir activité boo xam ne ça n'a rien à voir avec les enseignements damay fàttali damay fàttali en am na défilé de mode bu doon am ci benn place bu jege université ci benn hôtel boo xam ne ci corniche bi la nekk ñun étudiants yu d'alors on était des représentants yoo xam ne dañ ko ñaawlu woon dañu bàyyi ba activité bi bëgg a commencé ñu jóge université dem tas ko parce que ñoo ñu doon def défilé dañ ci boole woon ay étudiantes ñu ne lii bu lawee day jël étudiants yi détourné leen yóbbu leen ci loo xam ne du ñu seen du seen kii donc vraiment lii bu amee fii amee ci biir université bi ci waxtu bii ñu nekk nii vraiment mënuñu def lu dul ñaawlu ko voilà Alioune Faye ñu daal di ñëw un si seen euh, position status lan mooy position par rapport ak ak laaj gi ñuy laaj ne nañu ubbiwaat université bi euh, ñu daal di mën a euh, étudiants yi mën a daal di jàng normalement correctement yéen lan mooy seen position par rapport à ça gis nga position nag day évoluer mhm. position day évoluer suñ position d'emblée moo woon nañu defar université bi nañu delloo travailleurs yi perte seeni oto yi nañu rétablir parc automobile bi nga xam ne dañ ko lakkoon mais juin juillet août septembre octobre novembre de novembre ay juróomi weer yoo xam ne def nañ ko li ñu bëgg mooy autorités yi nañ ñu wax fan la ñu toll ci mbir mi autorités yi nañ ñu wax kañ la ñuy ubbi université bi parce que nag jot na ñi ñi xam université bi kañ lay ubbi. Euh, beneen laaj moom mooy uh, en tant que syndicat bi nga jiite temps yii ci ginnaaw doon leen leen gis ngeen di yëngu-yëngal di kaas uh, di laaj ay yokkute salaire ñoom seen fiñ tool toll nii est-ce que salaire yooyu rek leen et aussi est am ngeen yeneen jafe-jafe. loolu alhamdulilah rabbil alamin travailleur université yi pàcc yi ci euh, njeextalu grève boobu amoon nañ accord avec état. état proposé leen augmentation bu soixante quinze mille ak cinq pour cent donc euh, loolu mu ngi en cours appliqué nañ ko ñu ciy gërëm état di ci gërëm président de la république mi nga xam ne en plus de sa signé na décret bi nga xam ne depuis deux mille dix huit moom lañ doon laaj pour ñu réviser ñu ko ren le président de la république a signé le décret donc muy loo xam ne vraiment dañ koo rafetlu non seulement signé nañ décret bi mais am nañ augmentation soixante quinze mille ak cinq pour cent donc travailleurs yi liñ doon laaj mën nañ ne jot nañ ko te boobu ba léegi dellu nañ ci seen liggéey vraiment ñu ngi def liggéey bi ni mu waree. Hmm. mu nekk loo xam ne am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax a baax. kon amoo leen beneen jafe-jafe fi ñu toll nii. jafe-jafe du ñàkk. Hmm. Euh, affaire bi dafay continuer mais nit ki boo amee jafe-jafe am loo laaj ñu defal la ko dangay dellu liggéey. ba ca kanam quand nga doog a mën a waat euh, laajaat leneen loo xam ne euh, euh, soxla nga ko mais pour l'instant plateforme boobu vraiment teg nañ ko ci suuf parce que am nañ satisfaction ins waxuma ci weer yi di ñëw waaw at yi di ñëw mën na am yeneen plateforme structure bu boobaa aussi dañuy taxaw rek proposer ko déposer ko waxtaan ci ak état pour mu def ci lim ci man Alioune est-ce que ban appel ngay lancé plutôt njiitu réew meek ministre de l'enseignement supérieur par rapport ak situation ba ca université bu Dakar. ah li ma leen di wax rek mooy gannaaw ba nga xam ne def nañ lu rëy a ci enseignement supérieur gannaaw bi nga xam ne depuis bi mu fi nekkee ba tey ah def na ay réformes enseignement supérieur. def na ay infrastructure yu mucc ayib ci enseignement supérieur euh, jàppale na travailleurs yi augmenter seeni salaire leen ci ay conditions yu baax réviser seen décret jàppale enseignants yi defal leen ay vraiment avantage bu réer réer euh, te mu ngi ci njeextalu mandam université bi nekk en crise damay ñaan état di ñaan président de la république ñu penché wu ci université bi pour créer régler définitivement en crise bi nga xam ne mu ngi ci université parce que université nag boo ko déggee pour ubbi ak jàngale moo tax ñu koy wax donc yaakaar naa ne ci délai yu gàtt dina joxe instruction ministre de l' enseignement supérieur ak ñi nga xam ne mooy seen collaborateur vraiment ñu pensé wu ci question universitaire bi pour que ñu dem ubbi ndax xale yi waa mën a delluwaat ci ci classe yi. waaw ubbite boobu ngeen di laaj sax xam nga ñu bëri ñu ngi ragal euh, élection présidentielle bi tombé ak étudiants yi tàmbalewaat jàng ci ñuy ragal tension yi nga xam ne rek doon na fa am les euh, dernièrement mu daal di fay amaat si période électoral bi loolu loo siy wax. waaw loolu man dama jàpp ne waxu politiciens yi la rek la université de tout le temps dafa mës a coïncider ak calendrier électoral ku fàttaliku xam nga ne élection présidentielle yi passé yépp dañoo tombé université di fonctionner normalement te mosu ci yàq dara bii aussi du doon exception université bi ubbi yàqalul état mu déroule son calendrier électoral je pense que li fi am juin ñëpp xam nañ ne mosu dootu fi amaat état bi jël na ay mesures autorités universitaires yi jël nañ seen mesures te étudiants yi ils sont conscients de ce qui a été fait ils sont prêts à ce que cela ne se reproduise plus donc la leçon a été sûre ñi ñu jëlee nañ ci ay jàngat donc je pense que université ubbi terewul lenn lenn lenn ñi ñi dem élection présidentielle te bu ñu ko defee dinañ xam ne université nekk fi pour des questions politiques mais université daf fi nekk pour permettre doomu sénégalais yi ak sénégalais yi ñu mën a continuer seen njàng ni mu waree. voilà merci beaucoup Alioune Faye en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax. man itam maa ngi lay gërëm di gërëm réew Rewmi FM ci invitation bi ñu ma invité di leen sant di leen jox rendez-vous. ultérieurement ci yeneen question voilà merci beaucoup Alioune Faye ñuy fàttali ne Alioune Faye moo nekk secretaire général bu syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal ñu gën ko xam ci SATUS ñu koy remercier bu baax a baax